soobee yàlla bu soobee yàlla bu soobee yàlla dinañu ko delloo waa Pastef euh, boo defee ni waa Pastef euh, nekk Pastef euh, Maroc ngeen woolee ñu ñëw seet si ma delloo leen seen bracelet bi delloo leen ko am nañ lii nekk de manière symbolique am nañ ci ñee delloo ko mbokki internet yi Pastef les di Sénégal ñoo ko giseen noonu ñi nga xamante ne si rek am benn sa waaye bu takkoon li nga xam ne moo di bracelet waa Pastef rek ñu ne moom dafa rek def trahison daal rek wëtali rek euh, foofee sax ñi nga xam ne moo di waa APR ñoo gis ko noonu mu tekki rek la nga xam ne loolu la takkoon mu doon bracelet bu waa Pastef mu daal di koy tekki noonu sa loxo ba daal koy joxe daal rek dem ñu daal di takkal rek li nga xamante ne seen rek moo di euh, symbole bu ñooñee di waa moom rek euh, ñoom. ñu ne rek kii rek léegi jóge na Pastef daal di ñëw foofee rek sa APR tax rek ñu tekki li nga xam ne moo di boobile bracelet mu takkoon rek daal di koy la nga xamante ne si ne